sayyidina wa mawlaana muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. laqin lisaanii wahlul minhul uqad waj'alhu zaakiran wa shaakiran abadan. waj'al kalaamii raashidan wa murshidan wa fikratii nawwir wa qalbii arshidaa. mbokk yi, assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh. ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu àq te di leen ñaan borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxe ànd ak yéen ci ay bis bu jot ci suñu émission bi nga xam ne moom lañ tudde jataayu xam-xam te di ci fàttalen teendoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ñu tolloon ak yéen ci téereem bi nga xam ne moom la tudde jazbatu sigaari an laibin li xidmatil muxtaar téere boobu ñoo ngi ci doon ànd ak yéen ci suñu bind yi mujj yëpp ba suñu bind yi mujj ñi ngi tolloon ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu jagleel yonente yi alayhimu salaam ak ni nga xam ne noonu lañ leen war a gëme ak li nga xam ne moo war ci ñoom yëpp ak li nga xam ne moo jomb ci ñoom mu mel ni buntu boobu ci suñu bind bi mujj lañu ko jeexaloon suñu bindu tey ñu war a ci beneen bunt bu bees di bunt boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko jagleel Euh, bis bu mujj boobee nga xam ne moo di bis penc nga xam ne léppi doomu aadama bi foofa lay sottee euh, lépp loo xam ne moom la doomu aadama bi doon jëf fii ci àdduna te bis booba la koy suttale ndax lépp lu mu doon jëf fii mën nañoo wax ne bis ba bis booba moo tax kon bis booba lan lan ci war a gëm ak naka lañ ko war a bàyyee xel ndax ya nga xam ne moo ca mën a xew yépp kon sëriñ bi ci buntu boobu mi ngi ñuy leeral naka lañu war a gëme bis boobu waaye tamit mu ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu fegal ñu njàqare ak tiis ya nga xam ne nekk na ca bis boobee bunt boobu moom la tudde ni a taarifu bi kayfiyatil imaani bil yawmil axir aw bil yawmi kafaana allahu taala ahwaalahu attaarifu bi kayfiyati alimaani bilyawmi kafaana allahu taala ahwaalahu mu ne bunt bi mi ngi ci bëgg a jàngale naka lañu war a gëme bis boobee bis boobee nag bu ko mu ci jublu mooy bis bu mujj ba daa ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala mu fegal ñu nga xam ne moo am ca bis boobee yépp ndax bis boobee day bis la boo xam ne euh, dara ci jëf ju baax du fa doy lépp loo xam ne nit ki jëf na fi jëf ju baax ba naw ko rek bu demee ca bis booba da doon euh, da doon da bu sañoon euh, bu sañoon jamonom gën a yaatu wala yàlla gën a xëcc aw fanam te gën a sorel bis booba ba mën a yokku jëf ju baax ji nga xam ne moom la doon def kon bis la boo xam ne jëf ju baax rek moom moo fay amal nit ki njariñ waaye jëf ju tege ci lu yàlla gërëm rek mooy li nga xam ne moo fay amal nit njariñ kon bis boobu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñuy jàngal naka lañ ko war a gëmee ak la nga xam ne moo cay xew ci ay xew-xew yépp mu tàmbulee bunt bi mu ne imaanukum seenuk ngëm ya ayyuha sibyaanu yéen ndaw ñi bizaalikal yow mi ca boobale bis wa huwa moom al ixaanu mooy dëggal ne bis booba euh, bi annahu naka bis booba day xaqun dëgg la wa annama ak lépp la nga xam ne istamala làmboo na ko alayhi ca biiram xaqun dëgg la min sururin moo xam mu ci loo xam ne luy bégal jaam bi la wa wajalin wala loo xam ne luy jàqaloo jaam bi luy tukkee ci luy jàqaloo jaam la sëriñ bi radiyallahu anhu ne na bis yi nga xam ne mooy bis bu mujj boobu day na ngeen xam yéen uh, gone yi ne bis la boo xam ne gëm gi ngeen ko war a gëm bi ko war a gëm gëm gu dëggu waaye gëm yitam ne lépp loo xam ne wax nañ leen ne bis booba làmb na ko ci mbégte ci ñi nga xam ne ñoo tegu woon ci yoonu siraatul mustaqim bis booba làmb na ko waaye tamit bis la boo xam ne lépp loo xam ne xibaar nañ leen ko ne moom la làmboo ci njàqare itam bis boobee làmboo na ko kon lépp luy mbétte mën nañoo wax ne bis boobee làmboo na ko waaye itam lépp luy njàqare itam bis boobee làmboo na ko kon ñu war a bàyyi xel bis boobu bu baax a baax eh, xam ne eh, lépp loo xam ne doomu aadama bi mi ngi koy jëf fii ci àdduna kon bis booba moo war a tax mu koy jëf waaye bis booba la war a gën a bàyyi xel ci euh, lépp li nga xam ne moo di ak dundam ndax sëriñ bi radiyallahu anhu bu ñu xoolee ci machalik euh, jëf ju baax ni mu amee solo moo tax mu ne ñi nga xam ne ñoo faatu day li ñuy xemmem mooy yàlla delloo ci leen àdduna ban man fee jëfaat def ju baax joo xam ne dina leen jariñ bu ñu delloo te seeni bàmmeel kon loolu li muy tegtale mooy bàmmeel sax jëf ju baax walay tàmbalee feeñe waaye du fa doy waxuma laa nag bis ba nga xam ne ci suñu borom subhanahu wa taala di peese jëfi jaam ñëpp nga xam ne kenn ku ne koo yoreeloon bor wala nga yoreel ko àq day ñëw taxaw ngir nga fay ko ko kon loolaa tax jëf ju baax jërut jëru fa jëruta am ba ndamoo ko loo ci man di am itam bul ko naw waaye nang ko xeeb ngir ne xamoo ñi nga yoreel ay àq nu ñu toll waaye tamit xamoo ëllëg euh, li nga xam ne mooy say jëf bu ñi nga yoreel ay àq buñ ko jëlee ba pare buñ la peeseelee xamoo nu muy demee kon looloo tax nit lu mu jëf ci lu baax rek war koo war koo xeeb bu baax a baax a baax ndax la bis ba làmboo ci ay mbir yoo xam ne mën naa jural nit ki mbégte waaye itam noonu la ko mën a jurale njàqare te it bés la boo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala ni mu koy eh, tudde ci alquran eh, bés la boo xam ne nu róowut ak bis yëpp ndax bés la boo xam ne suñu borom bi subhanahu taala wax na ci alquran ne doomu aadama eh, ci ni ñu baaxoo xam nañ ne ku mën a layal boppam la ku mën a défendre boppam la ci aw làmmiñam loolu moo tax bis booba suñu borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne euh, làmmeñ wi nga xam ne day wax day euh, dañ koy kaste maanaam làmmeñ bis booba du wax waaye cëri doomu adama bi ci boppam mooy li nga xam ne bis boobu moom moo koy seere ci lépp loo xam ne moom la mos a def bo fekkee ne daa mos dox jëm fu bon bu boobaa ab cëram moo koy seere ca bis boobe bu fekkee dafa mos a jëf ci ab loxoom lu bon bu boobaa euh, bis boobee cër boobee di loxo moo koy seere kon cër bu ci ne rek euh, bu booba lépp lu mas def rek moom mooy waxal boppam ne moom moo ko def moo tax suñ borom ne al yawma naxtimu ala afwahihim maanaam bis boobee ca la ñuy kaste seen seen seen seen seen gémmiñ yi maanaam seen gémmiñ yi dañ koy kaste ba du wax seenu làmmeñ du wax mukk lay wax mooy lan yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamalun mooy bis ba nga xam ne euh, la nga xam ne moo leen fay seere rek mooy seen cër yi nga xam ne moom la leen suñu borom subhanahu temps taala joxoon euh, mooy loxo yi bu fekkee ne dañoo dafa defoon dara moom mooy wax ne moo defoon nangam tànk yi tamit noonu cër bu ci ne lépp loo xam ne mas na koo def rek bu ko suñu borom subhanahu wa taala gaarale ab téeréem euh, mu miim ko booba cër booba moom mooy mooy mooy taxaw wax ne moom moo defoon euh, jëf sàngam mooy bés boo xam ne i tamit euh, comme ni ñu ko waxee dara du xodo yi te it ne la jébbal sa téere ku ñu dee jébbal sa téere ci sa loxo di jox nag nga gën a noyyiwaat waaye gën amaat yaakaar ci sa bopp waaye ku nu jébbal téere ci sa loxo tam niñ ko booba itam euh, njàqare dana la fees del njàqare dana la fees del euh, moo tax mu ne fa ammaa man uutiya kitaabuhu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira képp koo xam ne day jébbal nañ la sa téere jëf ci euh, sa loxoom day joor bu boobaa sa xisaab maanaam réglé gi la suñu borom subhanahu wa taala di réglé dana doon réglé goo xam ne réglé gu yomba yomb lay doon goo xam ne boo ca jugee ci mbég rek ngay tàbbi waaye wa maaman utiya kitaabuhu wara azharihi wa sawfa yad'u subura képp koo xam ne joxe nañ la sa tere ci sa ginnaaw na nga xam ne bis booba de da nga ay alkande yu baree bari te it wayas la sha'ira da ñam sawara si nga xam ne moom lañuy ñuy tudd sha'ir kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci bis boobee muy bis boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ciy wax ba tey ne wa yawma nusayyirul jibaala wa taral arda barizatan fa xasarnaahum falam nugaadir minhum bis bi nga xam ne euh, suñu borom bi subhanahu wa lépp loo xam ne moo nekk ci kaw suuf rek daf koy raafal ba mu Euh, nga xam ne bis booba ca lay pang nit ñëpp jëme leen ca euh, euh, kanamam nga xam ne ñëpp dañuy taxaw ci kanamam ngir lan ngir li nga xam ne moom lañ doon def ci àdduna ñu mën a taxaw kenn ku ci ne ñu régle say jëf ci anam gi nga xam ne moom nga ko doon jëfe bu boobaa nag suñu borom di wax ci bis boobu ba tey ne wa wudi'al kitaabu wa taral mujrimiina mushfiqiina gannaaw bu tegee téere yi ba teg balance yi ba war ko nattale nga gis ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay kàccoor fii ci àdduna eh, di yërëmtalu waaye di ñeewante ñeewantelu ngir lan ngir xam nañ ne li ñu jëf dara baaxu ci te it bu tegee seeni jëf seen balance danañu rus ci kanam seen boroom waaye itam li nga xam ne eh, moom lañ doon def eh, fii ci àdduna danañ ko rëcc bu baax a baax fataral mujrimina mushfiqina mimma fi ñu tekke nan fa yaquluna yaa waylatana ma li hada alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada kon mooy nga xam ne ku ci kun ci jox sa téere ci ñoom kàccoor yooyu nga xam ne dañoo nekkoon ci lu suñu borom subhanahu wa Euh, da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay yéemu ci suñu borom waaye itam da waaye itam da doon mébét euh, téere boobu sax ñu bañ la koo jox daf la doon gënal yaa waylatanaa maa li haadal kitaabi laa yugaadiru saxiiratan wala kabiir ñu ne waa téere bi nga xam ne moom du bàyyi lu ndaw du bàyyi lu mag maanaam lépp loo xam ne mas nga koo def rek téere bi daf la koy andil Eh, ca na nga ko defee ak anam ga nga ko jëfe ak jamono jom ko jefe yépp te suñu borom bi subhanahu wa taala nag nee na eh, du tooñ kenn ci téeréem yooyu téere yooyu nga xam ne moom la jaam gi doon jëf ñu ci bind li nga xam ne moom la doon def kon lépp loo xam ne def nga ko rek na nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala mi ngi lay bàyyi xel te it bis la boo xam ne ñëpp bu ñu ñëwee taxaw kenn amul fooy rëcc kenn amul foo mën a jaar ba rëcc ñëpp dinañ taxaw suñu kanam suñu borom bi subhanahu wa taala mu réglé leen ci li nga xam ne moom lañ doon jëf moo tax mu ne yaa ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfizu min aqtaari samawati wal ardi la tanfizu la tanfizuna illa bi sultaan maanaam yéen mbooleem nit ak jinni képp koo xam ne mën nga bëtt euh, euh, suuf si wala nga am fenn foo xam ne fa nga mën a jaar ba jaar fa nga jàll parce que suñu borom subhanahu wa taala buy wax loolu ci kattanam ak euh, man-manam ak sañ-sañam xam na ne euh, lenn luy doomu aadama wala jinne muy nit teg jinne kenn ku ci mën a def loolu amut kon bis booba lenn rek moo fay jëriñ doomu aadama bi mooy euh, jëf ju baax waaye lenn rek moo ko fay jëriñ mooy euh, jëf joo xam ne daanako ko jëf ci àdduna di ci bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala kon bis boobu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na euh, ni ngeen war a def mooy ngeen gëm ko waaye gëm ne lépp loo xam ne mooy am ca biir bise bi bis ba itam moo xam ci mbir lay doon wala ci njàqare lu ñu la ci nettali na nga xam ne am na lu ñu ci bàyyi ngir tartar yi nga xam ne moo am ca bis boobu wax nañ ne bis la boo xam ne nit ki dina ñàq bay fee ci aw ñaqam nit ki dina ñàq bay fee ci aw ñaqam loolu lu lu lu yéeme yéeme la te lu doy doy te bu ñu xoolee itam e, wax nañ ne e, sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam e, bi mu koy nettali saxaaba yi ñu ne ko mu ne leen bis booba day kenn ku ci ne eh, ni nga gane woon àdduna noonu nga ñëwee eh, sayyidatuna Aïsa di ko laaj ne ko ndax maanaam nit ñi duñu sol ay yére wala dara mu ne ko bis booba kenn du tala xool sa moroom kenn du tala xool sa moroom doo tala xool ci sa moroom lenn lu dul ne yow sa bopp rek ngay tal lu dul ne yow sa bopp rek ngay kon bis la boo xam ne njàppare la feesa dell waaye bis la boo xam ne bu mata bàyyi xel la kon moo tax sëriñ bi ne imaanukum yaa ayyuha sibyaanu bi zalika al yawmi huwa al iqaanu bi annahu xaqun wa annama shamal alayhi xaqun min sururin wa wajal lamu làmboo nag bokk na ci kan nasri lu ko mel ni eh, dekkal ga wal xasri ak pang wakal misaani ak lu mel ni balance ya muy peese jëf ya wal xawdi ak dex ya muy déeg ya wal jannati ak ajjana ya wa niiraani ak sawara ya waka siraati ak lu mel ni siraat wal muruuri ak romb ga wal xisaabi ak regle ga waka shafaati nabi ak lu mel ni ràmmum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal azaabi ak bugal kon nee na bis la boo xam ne yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne làmboo na bis booba muy dekkal bi nga xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala dana ko dekkal euh, jaam yi xam ne kenn ku ci bu la suñ borom bi subhaanahu wa taala ne loo yàgg-yàgg ci biir suuf bu suñu borom subhaanahu wa taala digalee malaaka mi wal bufta bi mu wal ko rek loo yàgg-yàgg ci biir suuf da ngeen di kullet kullet di génn mel ni ab nawet boo xam ne dafa taw ba ñax mi di sax noonu ñax mi di saxe di génne noonu la doomu aadama yi di génne ci suuf euh, ca bis booba waaye bu ñu génnee ba pare ñoom ñépp nag ñu pàng leen maanaam jiital leen mel ni ku yor ak euh, ak jur gooy sàmm ñoom ñëpp yóbbu leen ci kanam suñu borom bi subhanahu wa la waaye foofa suñu borom bi subhanahu wa taala tegal leen balance yi képp koo xam ne doon nga jëf jëf joo mës jëf ci àdduna suñu borom bi subhanahu wa euh, la ko peeseel la ko euh, ba nga xam yow fan nga féete waaye itam bokk na ci yi nga xam ne mbég la ci ñi nga xam ne ñooy ñoo nekkoon ci Eh, yoonu jub bi lu mel ni xawdu nabi muy kaw eh, kawsara googu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel ak ñi nga xam ne ñooy way gëm ñi te toppoon ko ci li nga xam ne mooy lislaam waaye itam eh, àjjana yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko préparé ngir lan ngir jaamam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci li nga xam ne moom la digle waaye itam sawara Euh, si nga xam ne daf koo préparé ngir lan ngir euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci euh, li nga xam ne moom la doon aaye te di ko tere niki noonu itam bala ñoo dem ci ajjana wala sawara am na lu ñuy tudde siraat foo xam ne wax nañ ne siraat moo gën a sew boo fireñ ci woon geenu fas nga jël benn benn kii benn buum ci gennu fas rek benn karaw ci gennu fas rek boo ko jëloon noonu muy sewee wax nañ ne siraat moom moo koy gën a sew waaye it kenn ku ci ne kem sa jëf ni mu toll ak kem sa jëf euh, ju baax ni mu toll wax nañ ne noonu nga koy jéggee am na ci ñoo xam ne sax euh, dinañ jaar siraat ba jàll te duñ yëg ne sax ñoom jaaroon nañ siraat ngir jëf yu baax yoo xam ne doon nañ ko def waaye góorgóorlu goo xam ne doon nañ ko góorgóorlu ci àdduna ba tax loolu tax na seenug seenug jéggi siraat Euh, daal di jàppandi lool niki noonu itam régler gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa di régler euh, jaam ñi ci jëf yi nga xam ne moom lañ doon jëf nga xam ne foofa képp koo yoreel àq fii bañ ko koo fay bu ëllëge yowmal xiyaam dañ ko ko fay moo xam àq ja mu man di demee euh, moo tax léeg-léeg da gis nit tooñ nit ba yéeg ci kawam den jël ay avocat fay ab xaalis bu bari fexey ba tooñaange ga wëlbatiku ci kaw ka nga xam ne moom moo moom dëgg ga waaye loolu lépp fii ci àdduna la yem koo ko def itam bu ëllëgee yowmal xiyaam di nga ko di nga ko layoo ak moom waaye àqam jooju na la leer ne naax saayit waaye bu ëllëgee da nga ko fay ndax suñu borom bi subhanahu wa taala ko maandu la te it képp koo xam ne yore nga àq doomu aadama fii ci àdduna bu ëllëgee da fay bokk na ci itam ràmm gi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ràmm aw xeetam ëllëg yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne dana ràmm aw xeetam ëllëg ñoo xam ne seen seen seen seen seen ak maanaam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf lii na waroon a tàbbal sawara yonente bi moo leen di tinu ba suñu borom subhanahu a ta'ala jéggal leen tàbbal leen àjjana waaye itam bugal mi nga xam ne moom lañu bugal Euh, ñi nga xam ne ñoo doon jàdd tey jalgati di jaan ci ñàllu wa yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne dana am ca euh, bis booba kon muy bis boo xam ne euh, li ñu wax rek lépp loo xam ne moom lañ la ci wax ci njàqare wala mbégte xamal ne lay am ca bis ba ëpp na loola waaye itam nit ki war koo waajal bu baax a baax a baax te fi mu koy waajale mooy fii ci àdduna kon nit ki man naa jef lu ne fii ci àdduna mën naa def lu ne waaye na xam ne moom euh, yàgg yàgg ci suñu borom bi subhanahu wa taala lay dellu kon bu kenn di def dara ba jàpp ne yow suñu borom bi subhanahu wa taala daf laa fàtte wala yow doo dellu ci suñu borom bi subhanahu wa taala ndax suñu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne afa xasibtumu annama xalaqnaakum abathan wa annakum na la turjaun maanaam ndax da ngeen a jàpp ne Euh, dama leen a bind ci ay caaxaan bind leen ci am fo rek te du ngeen mës a ci man na ngeen xam ne yàgg-yàgg ak lu ngeen yàgg-yàgg ci jamono na ngeen xam ne bis dina ñëw ngeen dëpp ñëw fekkaat ma man sama borom bi subhanahu wa taala leen soxlaa ma réglé seeni jëf comme loolu nag dina am moo tax nit ku ne war koo bàyyi xel waaye di jëf loo xam ne dana tax bu ëllëgee euh, bu dajee ak suñu borom bi subhanahu wa taala Euh, bañ am benn jafe-jafe waaye mu bañ kon ñoo tuub baax tey jégglu di wàcc foofu kàddu gi di wax ne in uridu illal islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa